jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte nag dellusiwaat tey ci plateau bi fas yéene leen dégtal numéro bu bees ci seen émission 90 minutes ensemble tey nag ñu fas yéene taxaw euh, ci premier mais bi xam ngeen premier mais mooy di fête boo xam ne ñu ngi ko jagleel bépp liggéeykat bu nekk ci àdduna bi Sénégal nag lu tubaab bi naan à l'instar des autres pays du monde maanaam Sénégal kenn demul mu des tey fête na. lii nga xam ne moom moo di nag la fête de travailleurs ba tax na tey ñu fas yéene ci taxaw samp ab laaj xool fan la mbir yi toll bu nag fu mu toll nii ci Sénégal euh, lii nga xam ne moo di quand revendication yu central syndicaliste yi syndical yi yëkkati woon syndicaliste yi yëkkati woon fan la ci nguur gi toll ba tax nag tey 90 minutes ensemble di seen émission bi may ànd ak yéen àllarba bu jot ci waxtu bi euh, fas yéene ci taxaw def ci ab seetlu tuuti nag tey nag gannaaw ba ma waxee bonne fête de travail à les travailleurs ma fas yéene nag ànd ak ci biir waxtaan wi ki nga xam ne moo di sama naataango Babacar Dione moom xam ngeen ko analyste politique la dafay ànd ak man saa su nekk ci émission bi. ba tey ci biir émission bi ki ma ci fas yéene àndal tam bokk na ci Cheikh Diop mu di secrétaire général CNTS FC force du changement ma tey ak ki nga xam ne moom moo di Karim Cissé mu nekk directeur du travail waroon na bokk ci waxtaan bi ki nga xam ne moo di Sidia Ndiaye waaye ñëw na ba ci buntu bi mu ne nag dafa am benn maanaam yaram bi moo xaw a jagati ab malaise bu ndaw ba moo tax daal mënul yegg si euh, maanaam ci émission bi kon nag ñu koy gërëm bu baax moom tamit di ko ñaanal ab tane bu baax kon mbokk yi tey nag ñu balaa maa jox kàddu gi sama sama sama sama sama invité yi ak sama naataango yi ma bëggoon nag juste rek wax leen tuuti ci lan nga xam ne lay waxtaan bi fas yéene jëm mu jëm ci situation des travailleurs au Sénégal fan la ñu toll ci revendication yi Euh, maanaam pour parler yi maanaam pourquoi sax maanaam lu tax li nga xam ne moo di pour parler yi di waxtaan yi euh, di bloqué au niveau du système de rémunération yëpp war nañ ci waxtaan tey fan la ñu toll ak le pacte de stabilité sociale est-ce que pacte de stabilité sociale bi li nga xam moo di évaluation tey est-ce que ça se pose wala déet war nañ ko waxtaanee ci biir émission bi ba tey dañ ci waxtaanee ci biir émission bi li nga xam ne moom moo jëm ci euh, subvention annuelle yi nga xam ne moom lañ jagleel centrale syndicale yi ñu jàpp ne ba ñu defee élection de représentativité yi nee nañ ñoo jiitu ndax ñeneen ne nee nañ ñetti téeméeri millions la ñii ne nañu juróom-benn téeméeri millions dégg nañ sànq Ibrahima Sall mi nga xam ne mooy secrétaire général CDSL wax na ko ci tele bi bu mu ci munti am ki nga xam ne moo fi teewal nguur gi di Karim Cissé. mu nekk directeur du travail dina ci indi ay leeral lu jëm ci loolu kon mbokk yi ay wax yu bëri fas yéene nañ ko wala ay laaj yu bëri dañ ko samp nañ ko ci biir émission bi ñu fas yéene ci waxtaan ak suñuy naataangoo kon Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh. kontaan naa ci yow loolu di la wax euh, bonne fête de travail aussi. Babacar oui merci merci à toi aussi bonne fête de travail à tous les travailleurs du Sénégal et du monde entier. jërëjëf. Euh, et puis heureusement je crois que thème bi dafa méngoog tey àllarba. Hmm. du ñu wax rek lu dul si liggéey si syndicat yi. ak ñi nga xam ne ñoo seq euh, liggéeyu euh, liggéeykat yi. Hmm. de telle sorte que donc c'est heureux de voir que tey mu tombeek mercredi premier mais euh, ñu mën a am thème bu demee nii loo xam ne soxal na vraiment àdduna soxal na également sénégalais yëpp quoi. yàgg naa dégg sama yaay ne ma du lépp lu la wolof njaay dëgg la waaye lu mu la léebal dëgg la moo tax bu ñu ne la tombé waral ay gaaf rek. dëgg <laughs> am na lu tax léegi Cheikh Thomas. ci yow lay mujje ci présentation parce que dama bëgg jox la kàddu gi en gis d'introduction pour ñu xam fan la revendication yi toll boobaa daañu jox Karim tontu ba pare Babacar tam dina ñëw waaye mais damay nuyu Karim yow yaa di le directeur du travail am na après maanaam yeneen fonction yu bëri si topp sax mais dama koy tënk rek waxee ko noonu Karim maa ngi lay nuyu malgré ak Cheikh nga xam ne seen journée chargée na lool mais vraiment vous avez tenu quand même à être émission ma lay gërëm di la sant invitation. Euh, maa ngi lay gërëm euh, Cheikh di gërëm. Euh, Babacar di gërëm euh, sa turandoo Cheikh Diop di rafetlu jotaay bi euh, di ci ñëw avec euh, beaucoup de plaisir parce que rafet na bu ngeen invité les secrétaires généraux des centrales syndicales ci lu mel ni fête du travail ñu war ci waxtaanee revendication travailleurs yi seen niveau d'exécution seen évolution lan la ci nguur gi jéem lan la ci patronat bi jéem rafet na ngeen woo euh, représentant de l'État mu wax euh, lan moo ci xalaatam nan la gisee évaluation bi et puis nan la gisee aussi les perspectives donc. Euh, maa ngi leen di remercier ci invitation bi. jërëjëf jërëjëf Karim ba tey ci waxtaan bi ma fas yéene ci ànd ak euh, Cheikh Diop mi nga xam mooy secrétaire général CNTS FC Cheikh Diop nuyu naa la yow tam ma lay gërëm di la sant ndax tey ci suba gis naa la tamit ci télé bi euh, ci suba ba léegi yaa ngi ci terrain bi mais vraiment malgré sa emploi du bu chargé vraiment nangul nga ñu invitation ñu lay gërëm di la sant bu baax. jërëjëf Cheikh man maa ngi leen di gërëm di sant di rafetlu jotaay bi ak ñi ma seqal plateau ñu féete ma ci wàllu kilifteef parce que directeur du travail moo yilif xëy bi mm-hmm. pàccu patronat bi aussi su njaatige lañ mm-hmm. di la sant bu baax ci jataayu tey bi te fet du travail la dëgg la fête du travail ci centrale syndicale ouvrière mun naa wax ne ñu ngi tàmbali préparatif yi depuis premier avril. Mm-hmm. tey di journée bu tar nag liggéeykat yi jar nañu ko jar nañu ñu toog waxtaanee tolluwaayu revendication yi ak tolluwaayu xëy mi loolu duñ ci am coono parce que mooy suñu mission kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëmaale wale aussi seen téléspectateurs yi gis nañu at bu nekk da ngeen di yóbbul njiiti réew mi ay revendication maanaam seen i ñaxtu tey ci ngoon sax def ngeen ko dem ngeen ci palais jàkkaarloo njiiti réew mi wax ko lu leen métti waaye nee nañu revendication yi daal ab benn façon la ba tey benn yi ngeen doon ñaxtu daaw daawaati jéeg daawaat daawaat encore ba tey moom ngeen di ñaxtu est-ce que loolu am na wala déet dafa mel ni seen revendication yi dara avancé wu ci wala. oui euh, mënuñu wax ne dara avancé wul waaye nag mun nañu wax ne euh, jafe-jafe am na ci ci ci traitement bi euh, revendication yi. Mhm. ndax. revendication cahier de doléance yu ñu déposé am na aussi aspect yu bëri yu échappé opinion bi parce que cahier de doléance bu ñu koy élaborer dañuy sukkandiku ci li nga xam ne mooy moo ëmb mission syndicat parce que syndicat damay faral di wax ne la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs mooy définition bi gën a étriqué bi gën a xat bi gën tuuti ci mission bi dañuy faral di wax ne lépp lu itteel askan wi itteel nañu lépp luy soxla askan wi suñu soxla la kon buñ dee élaborer cahier de doléance yi dañ koy yaatal day nekk genre demande sociale parce que boo leen fàttalikoo en 2000 bi mbënn mi amee bokkoon na ci cahier de doléance yi la mobilité urbaine am na ñu dem ba bay wax mobilité rurale xam nga loolu bu ko dee wax Euh, du luy dugg ci poosu liggéeykat yi ci saa si kon dama bëgg aussi aspect boobu opinion bi sóoraale ko parce que cahier de doléance bu ñu ko dee déposé dafay nekk stock demande sociale président sax dégg naa ko mu ne est-ce que du am année bu nga xam ne cahier de doléance du am loolu musiba la parce que cahier de doléance yi ñuy déposé au fil des années bépp gouvernement bu responsable mun na ko consulter comme banque de données de la demande sociale bu élaborer les politiques publiques mu mën ci soorale lu bëri bu dee revendication nag syndicat du xaar première mai revendication bu jàpp day takk ndigam jàkkaarloo waaye première mai dafa am aspect symbole commémoration waaye it am aspect dem déposer stock demande sociale bi demande sociale bi am na solo. gouvernement bu responsable kon ci biir ci biir demande sociale bu amul ay revendication yi ngeen ci def. ay revendication mi ngi ci. mais dama bëgg a wax ne. yu demee ni revendication yi du lu lu concerné rek liggéeykat yi kese. lu hmm. concerné askan wi sax mi ngi ci. kon euh, syndicat dañuy wax ne notre action s'inscrit dans celle du peuple et que nos préoccupations intègrent celles des loolu mooy définition bi gën a yaatu ci mission syndicaliste loolu nag bu amee. Hmm. fokk bu ñuy déposer cahier de revendication yi ñu jéggi tuuti kii liggéeykat yi mais nag li ëpp solo. mooy ci suñu taxawaay mooy. revendication liggéeykat yi buñ ci excès dinañ wane ne revendication yi bëri na ñu nga xam ne wax dëgg satisfaire guñ ko te am na ci yu nga xam ne war nañ ko mën a parce que gis nañ ne système de rémunération ba léegi ça pose problème maanaam yu bëri nee nañ vraiment gis nañ quand même lii di ba léegi c'est au point mort maanaam bougé wul seen naataango bëri wax nañ ko système de rémunération bi euh, dafa mel ni njàqare ci gouvernement bi <coughs> ndax biñ ko càmbaree def étude bi ñëpp dañu nangu ne système bi doy na war tey jii sax wax dëgg yàlla président évoqué na ko nga jànganoog nit am même cursus fi ngeen jaar yëpp di benn ngeen soobu ci liggéey saleeram ëpp sa bos lu ëpp huit cent mille loolu xam nga problème te loolu liñ daan doxale moo ko indi ba fi mu nekk ni système di rénumération bi ñëpp d'accord nañ ci ne kiiwul problème bi ñu am kay mooy bi président évoqué ñi nga xam ne dañu nekk ci kaw. Hmm. ndax dañ leen di wàcce ñi nekk ci suuf ndax dañ leen di yégal ah mais le salaire moom nanguwul ñu yéegal mais le salaire est un acquis quand même xam nga kan lu nit du am dara nga koy wàññi. négociation dafa am te jàpp naa ne suñ ubbee négociation yi. Hmm. soob ci ñi nga xam ne négociation seen seen seen seen seen kii la seen seen seen seen seen màcce la yaakaar naa ne dañu am solution parce que ñun ñu ngi koy càmbar di jéem a seet naka la ñu war a def pour solution am. te yaakaar naa ne am nañ ci ay proposition bu jotee dinañ ko teg ci table bi mais système de rémunération bi fokk ñu song ko fokk ñu waxtaanee ko mënuñu ko bañ a ñàkk a waxtaan. est-ce que c'est possible. étude bi loolu la wone. est-ce que c'est possible quand même d'aller vraiment se vers ce système de rémunération vu les charges aujourd'hui de l'État ndax ñëpp nee fu mu toll la masse salariale fait quoi presque du ni ñu koy waxatee tuwaay. du euh, du budget national bu budget bi yokkoo 40 pour cent la bu wàññee ko 40 la. ah quoi que il faut que loolu <laughs> les membres du gouvernement gën ñoo édifier. parce que déjà maa ngi yow ci yow Thomas ah. mais foog quand même euh, maanaam euh, jox kaddu gi ki nga xam moo di Karim moom tamit dina dina dina yëkkati ay kaddu ci li ni mel ci système de rémunération bi tout ça avancé yi nga xamante ne quand même jot naa am euh, depuis ba syndicats yi je vais pas dire depuis parce que c'est trop dire quand même mais durant les je pense que ci mbirum euh, cahier de doléance d'une manière générale les revendications pour nga mën a am la bonne information il faut que nga xam comment euh, naka lañ organiser dialogue social ak négociation collective dans ce pays euh, du central yëpp ñooy toog sur la table de négociation parce qu'il faut le rappeler euh, 2017 def nañ ay élection générale de représentativité ñu wax ne ku amul dix pour cent euh, doo toggati ci table de négociation donc on a rationalisé si vous voulez la table de négociation ci lañ amee quatre centrales yi nga xam ne ñooy euh, participer actuellement aux négociations. mais loolu est-ce que gënul yokk xar bi karaw. waaw dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw parce que au moins hmm. dina yombal waxtaan bi mais peut-être responsabilité la pour centrales yi nga xam ne ñoo représentative ñuy impliquer ñi nga xam ne mënuñ toog ci table bi parce que état bi soxla da rationaliser mais limité wul la liberté syndicale buñ jógee ci méthodologie bi ñu ñëw ci naka la ñuy traité cahier de doléance yi chaque année bu centrale yëpp déposé seen cahier de doléance auprès de monsieur le président de la république daf koy remettre au ministre du travail kooku remettre ko à service ñu def la synthèse Euh, thématique de toutes les revendications génne bu ci nekk fan la bokk ñu génne aussi ban service compétent wala ban département compétent moo ko war a traité ñu jox ko ko demandé ko mu organiser des négociations sectorielles suñ defee loolu ba pare ñu dajalewaat leen dans le cadre par exemple bu ñu jëlee cette année ñu def un très grand atelier tripartite buy regrouper travailleurs yi euh, employeurs yi par tous les départements ministériels concernés biñ ko defee ren ci la ñu am euh, ñeenti famille yu revendication euh, maa ngi sax ak rapport bi fii parce que dégg naa ñenn euh, def naa am na ko wax ci rajo bi que kay daaw yi sax ubbiwuñ ko donc tey maa ngi rapport rapport bi nga xam ne jox nañ ko central yi jox ko patronat bi jox ko à tous les membres du gouvernement c'est un rapport de près de 74 pages. xëy na boo gisee ñu wax loolu parce que xëy na dañu gisul évolution. ci cahier de doléance bi dinaa dugg ci évolution bi. Hmm. léegi ci biir euh, rapport bi di nga gis ne euh, dañu am ñeenti pàcc yu ñuy teg pour gérer les revendications benn bi mooy dialogue sociale et négociation collective beneen bi moo laal euh, li nga xam ne mooy condition de travail yi beneen bi laal le cadre normatif ak institutionnel. beneen bi la le le soutien aux entreprises nationales. léegi boo duggee ci biir cahier di nga gis ni secteur bu nekk am na ay progrès am na ay difficultés progrès yi boo xoolee daaw ba ren boo jàngatee revendication yi travailleurs teg yëpp mën naa citer par exemple ci wàllu euh, pouvoir d'achat euh, lu mel ni le salaire minimum interprofessionnel garanti bi nga xam ne depuis quatre-vingt-seize le SMIC mu ngi woon ci euh, le SMIC horaire mu ngi woon ci ay deux cent neuf virgule dix maanaam euh, trent six mille deux cent quarante trois. ñëw ci SMIC bi ci kanam. dañ ko porté à euh, d' abord à environ cinquante deux mille indi ko cinquante cinq mille actuellement te day jàll ci euh, presque cinquante huit mille à partir de de décembre. Euh, disons deux mille dix neuf donc mu nekk benn jéego bu bu am solo. loolu mooy wàllu SMIC. boo jëlee ci wàllu négociation collective hmm. euh, tey partenaires sociaux yi fexe nañ ba am lu ñu tuddee euh, une convention euh, collective pour la sécurité privée muy une première au Sénégal et même en Afrique hmm. c'est-à-dire noo gis en Afrique wala au Sénégal une pour la première fois ñu am une convention collective buy régir le secteur communément appelé secteur du gardiennage dina améliorer légèrement peut-être seen salaire mais dina leen jox un statut et une certaine crédibilité euh, professionnelle bu ñu jëlee toujours ci wàllu négociation collective euh, mën naa citer la convention collective de la presse bi ñu dénoncé woon depuis 2011 mais en 2018 la ñuy doog a am un accord entre le CEDEPS et le SYNPICS sous l'égide du ministère du travail ñu am une convention collective. et ces disparités également yu Cheikh Diop di wax ak le système de rémunération ba tey ça pose problème oui oui j'y viens bon je. non c'est que xam nga dañuy bañ temps bi parce que. waaw je suis en train de citer j'aurais pu citer comme comme souligné na yooyu. ñoo xam exactement waaw depuis janvier euh, donc pension yi nga xam ne daana nekk peut-être quinze mille six mille dix mille francs c'est terminé. léegi pension bi gën a tuuti à l'IPRES c'est trente cinq mille bu ma ñëwee sur les difficultés effectivement comme ni ma la ko waxee da identifier les progrès mais identifier aussi les difficultés parce que négociation comme on dit jolof xëyul rek euh, sotti donc bokk na ci difficultés yi gën a màgg effectivement euh, la mise en œuvre des conclusions sur le système de rémunération dans la fonction publique donc tey déglu nañ au palais de la République la réponse président de la République qui a rappelé, qui a amené, invité tout le monde à la sérénité sur cette question parce que c'est une question très complexe. Est-ce que da ngay jël ñi ñi nekk ci kaw wàcce leen ci ñi suuf wala da ngay jël ñi ci suuf yéegal leen ci kaw est-ce que loolu euh, budget état bi attan na ko quand on sait que le pays ne dispose pas de de mais la porte est ouverte ce que les autorités ont dit ont donné comme recommandation mooy xool naka la ñuy négocier avec les partenaires sociaux pour jàngat les meilleures formules yi nga xam ne du perturber l'équilibre euh, des finances publiques mais aussi du euh, am benn euh, impact négatif

c'est pas une certitude dañu wax problème bi yombul du lu ñuy régler en une semaine wala en quelques jours li gouvernement bi wax mooy difficulté bi mooy dañu toog ba benn moment ñu gis benn déstructuration du système wala benn dérèglement bu jël euh, quelques corps précis yóbbu leen en niveau extrêmement élevé. parce que loolu enseignant yi di Bon, ax d'autres corps, je pense qu'il y a de corps qui n'ont pas bénéficié de ces, de ces, de ces largesses. Donc, nous, nous sommes ci kaw ba pare te peut-être qu'ils ont le même euh, mérite que et, même peut-être les mêmes performance que les autres. Est-ce que dang leen di wàcce ba ci ñi nga xam xamné amuñu dara wala est-ce que da ngay jël ñi nga xamné amul dara euh, amuñu lu lu takku te fekk ñoo ëpp ci dëkk bi ci fonctionnaires yi est-ce que ñooñu ñëpp da leen di yóbbu ci niveau ñi nga xam ne ñu ngi déjà à un niveau insoutenable c'est dire qu'il faut inventer de des formules euh, réalistes et réalisables. yan formules réalistes et réalisables la ñu war a mën a inventer pour introduire rapidement Babacar mooy défi bi parce que rémunération mën nañ ko jàngat sur beaucoup d'aspects mën nga rémunérer sur plusieurs bases je pense que li ci gën a am solo mooy ban consensus et Cheikh wax na ko. si la négociation est menée de façon professionnelle responsable et avec l'expertise qu'il faut mën nañ inventer des formules qui permettront d'amener euh, les partenaires sociaux à un consensus. d'accord dinaa ñëwaat ak ci kanam mais Babacar. soo dégloo ñaan yi nga jàngat bu baax li ñu mm. wax. di nga xam ne aussi politique maanaam rax na ci affaire bi parce que quand même yenn augmentation yi kenn xamul augmentation wu lan la peut augmentation yaa mu neex la benn régime nekk na fi def na ay yokk beneen régime ñëw na gis na ne carrément c'est une patate chaude bu ñu koy offrir mais ça amène quand un véritable bien euh, nga. boo xoolee ni ni syndicat yi bindoo. Mhm. xam nga ñoom daanaka ñooy kaasal ñooy xeexal liggéeykat yi syndicat yi. Euh, dem na ba nga xam ni boo xoolee damay xool centrale syndicale yi nga xam ne ñoom parce que xam nga boo dégloo grand léegi ci mu waxee nee na ñi ngi xeex am nañu ay propositions yoo xam ne ñu ngi koy def mais seetlu nañu aussi revendication yu bëri comme bi mu wax nii harmonisation des salaires ak yooyu yëpp euh, yàgg na donc euh, c' est des choses yoo xam ni par rapport à la retraite xoolal lu mel ni SMIC cinquante huit mille francs boobu dinañ ci taxaw xam ne ni xam loolu te. boobu dina ci euh, taxaw kanam. Euh, parce que moom si biir waxam sax. Mhm. xam nga dégg nga mu ne euh, c'est vrai que syndicats yi dañuy revendiquer lu ëpp sax lu weesu affaire liggéeykat yi rek. parce que liggéeykat bi tamit day jënd ceeb day jënd di ñu day jënd leneen xam nga ñoom mën nañoo yem rek si kaasal maanaam liggéeykat bi maanaam di ko di ko di ko protéger rek si liggéeyam il faut que également ñu xalaat doko bi xam nga fi mu nekk nii niveau de vie Sénégal ni mu demee ak loyer bi fu mel ni Dakar koo xam ni euh, dañ koy fay salaire de base am 58 peut-être lañ koy yokk bëriwul kooku da lay leer ni moom day liggéey rek ba sonn est-ce que sax liggéey bi ñu ko sant dina ko mën a defee. loolu dama bëru dugal mais boo xoolee euh, dama gis ni syndicat wu Sénégal dañu am problème parce que pour mën a défendre les intérêts des travailleurs comme di mu ko waxee moraux et matériels des travailleurs. dafa am problème parce que boo xoolee centrale syndicale yi c'est vrai que dafa am élection ba nga xam ñu ñu bedd si je crois sept. yoo xam ne dañuy ñoo gën a représentativité à part euh, CNTS FC bi nga xam ne dugg na ci ñun bi ñuy seetlu euh, vingt ans si ginnaaw nga xamee ni en tant que journaliste reporter ñi ñu doon gis ce sont les mêmes euh, centrale yi nga xamee ni CNT kii CNTS moo fi nekkoon xam nga Cheikh Diop si CNTS la génne. dëgg la Madia Diop jiite woon ko. mu amoon une une une sas bi nga xam ne une sas ma dem ba soog. Mhm. amoon doole surtout au niveau de la de la santé ak enseignants yi. parce que moom ci quatre quatre centrales syndicales yi sax la bokk. voilà Mamadou yore enseignants yi. Mhm. Euh, amoon doole santé également ñu amoon ñoom ñoom Mballo Dia Thiam yi ngay dégg ba léegi sut sas amoon doole également mu amoon nag CSA aussi amoon doole CSA boo xoolee Iba Ndiaye Dia ji ndeysaan euh, yàlla na ko yàlla yërëm mhm. moom moo ko jiite woon. yooyu fi nekkoon ñu nekkoon trois centrales syndicales yoo xam ne ni daanaka doon na am ay moment yoo xam ne sax dañu doon ànd si Abdou Diouf revendication doon na toll foo xam ni dañu doon juboo déggoo bien que ñëpp xam nañ ni Madio Diop dañoo gisoon ni amoon na fu mu féete euh, Mademba Sock am fu mu féete ñu gisoon aussi Iba Dia Diadji amoon fu mu féete maanaam ñoom ñoo nekkoon les trois responsables syndicaux yi nga xam ne ñoo doon négocier ak gouvernement bi mais doon na toll benn mois boo xam ne ni dañ doon toogandoo xeex bien que sax bu demee ba tàng si Abdou Diouf dina woo Madia Diop synthèse am nu mu waxee moom nga gis Madia Diop génn bu ko defee euh, bu ko defee ñeneen ñu continuer waaye après bu ñu amul doole boo xam ne rapport de force bu ñu mën a bu ñu mën a taxaw ci kanamu Abdou Diouf daanaka après day day du yegg fi mu war a yegg. Mm-hmm. parce que loolu fi ma bay jëlee mooy que ni euh, syndicat wu Sénégal dafa am yu bëri yu leen di bloqué maanaam affaire politique da cee bokk. au delà de ñi nga xam ne ñoo ko jiite peut-être euh, changé wu leen comme si structure yu bëri Sénégal muy politique muy feneen souvent c'est des gens parce que yi boo xoolee temps yooyu te ba léegi mën nañoo xalaat ni moo moo gangréné le système syndical sénégalais temps yooyu boo xoolee pays PIT moo nekkoon si parti moo nekkoon par exemple ñoo xam ni euh, benn syndicat ça doon nañ ko xalaate noonu maanaam UDEN bi nga xam ne Mamadou Diop Castro ko yoroon LDMPT moom moo fa nekkoon. c'est vrai Madia ñu doon wax ni PS la nekkoon. Mm. ba benn moment sax daf ko fësal. d'ailleurs amoon na ministre ñoom dañoo am sax benn ministre boo xam ni souvent ministre du ministre du travail synthèse jóge dem. parce que mais ñoom làqatu ci soor. li ko waral mooy ces sécurité généraux yi nga tudd. voilà dañ doon ci parti yooyu tamit foofu. Mhm. donc politique am si ba nga xamee ni daanaka euh, bu fekkee temps yooyu <laughs> PIT Amath Dansokho dugg na si gouvernement bi euh, syndicat yi doon kaas daal di wàññi seen kaas. bu fekkee lay bàcci Bathily dugg na ñu mel ni UDEN nga xam ne dañu doon tàngal enseignement bi daal di toog dootuñu kaas. loolu ba léegi da leen topp li ñuy wax ni mouvement étudiant ja moom Karim xam na si euh, gréviste bu mag la woon <laughs> jiite woon euh, jiite woon <laughs> mouvement syndical étudiant yi ah temps yooyu ñoom ñëpp dafa amoon buy ànd jëf en tout cas parti de gauche yi dañoo gangréné woon le système étudiant mouvement étudiant yi nga xam ne ñoo nekk université loolu dafa demoon ba si syndicat yi léegi ñu seetlu boo xoolee aujourd'hui liggéeykat yi maanaam boo boo boo leen doon doon compter yi mat par exemple à 400000 le nombre de travailleurs ñaata syndicat ñoo leen kii pas moins de trente organisations syndicales yoo xam ni ñoom ñoo ñoom ñooy ñoom ñooy xeexal quatre cent mille euh, liggéeykat travailleurs mais xam nga loolu bëri na les gens finalement se demandent loolu lu ko waral parce que dañoo dem ba gis ni centrale syndicale yi nga xam ne ñoo boole syndicats yi euh, liggéeyuñu liggéey bi nga xam ne travailleurs dañoo doon doon xaar si ñoom moo tax nga gis nag ci système ensegnement bi moo am ay petits syndicats yoo xam ne juddu nañu daal na ñun léegi ñu ñooy kaasal suñu bopp ñooy xeexal suñu bopp parce que gisuñu suñu bopp ci centrale syndicale yi. Mm-hmm. yooyu bokk na ci li nga xam ne tardel na revendication yi ba nga xam ne pour gouvernement bi jàppale parce que tamit quoi qu'on dise benn benn rapport de force la rek entre les syndicats et le gouvernement bu fekkee gouvernement bi dafa gis ni. yu bëri mooy permettre ko pour mu def ko syndicat bi dina am fu mu mën a bës pour sax au moins gouvernement bi dana am loo xam ne daf koy bàyyi. parce que su ma la déglu baax dafa mel ni le gouvernement cherche à diviser pour lu ñu koy woowee euh, li ñu leen di jox. ñeneen ñi subvention nee nañu 300 millions ñi nee nañu 600 millions ñi ngi naan 300 ba nga hmm. xam ni pacte de stabilité sociale pour une économie émergente xaw ma lan bi ñu ci d'accord en 2014 dañu ne euh, li li tax syndicat yi signé ko xaalis bi leen gouvernement bi jox la 600 millions lañ leen joxoon moo tax. ñu ne quatre centrales ñoo koy pàccoo fu mu toll pacte de stabilité boobu moo ne. de 2014 hmm. à 2017 3 ans yooyu maanaam dañuy dañuy ànd stabilité gérer ànd ak méngoo loolu sax mën nañ ko nangu mais ñu bëri nee nañu du ma ne moo am. mais xaalis bi nga xam ne gouvernement bi génne woon na ko jox ko syndicat yi moo tax finalement revendication yu bëri mu amoon benn passif social boo xam ne ni syndicat travailleurs yu bëri ñu ngi doon xaar syndicat yi def ko mais finalement yooyu yëpp dañ ci euh, dañ ko bàyyi daal méngoo gouvernement bi am benn pacte de stabilité xam ne de 2014 pendant trois ans maanaam xeex bi ñu doon xalaat ñu xeex xeexuñu ko. d'accord donc loolu dama la bëgg wax ni rek que loolu il faut ñu xalaat ni. Mhm. syndicats yi ñu xool li nga xam ni moo tax seen revendication yi nekkoon daaw ak daaw jéeg. ba léegi mooy nekkaat sur la table te pour ñu pour ñu yàgg si problème la. gouvernement bi certainement am na si benn part euh, benn part de responsabilité waxuma sax te xoolal on a une population active boo xamee ni dafa tuuti. parce que population active bi ñuy wax ñiy liggéey c'est entre quinze quinze ans et plus. ñooñu boo xoolee qualification bi c'est vrai que le gouvernement am na am na benn formation professionnelle boo xam ne mu ngi koy defal travailleurs yi boo xoolee ñi nga xam ni ñoom ñoo am maanaam ñoo am métier si si quatre cent mille yooyu ma wax ñi nga xam ni cinq pour cent. ñoo représenté 5 pour cent de la population active 5 la ñoo ci am qualification. xam nga nit ki peut boo amul qualification aussi pour nga défendre ay intérêt yóbbu ko à un niveau élevé c'est pas facile bien sûr je crois que yooyu c'est autant de combat boo xam ni mm-hmm. ñi ngi xaar syndicats yi ñu gën si approprié mm-hmm. pour mën a gën a dimbali alors Cheikh Diop su ma dégloo Babacar Dione day mel ni yéen tamit am ngeen part de responsabilité ci mbir mi dégg naa tamit yeneen centrale syndicale ñu ne sax ñu mënuñu comprendre pourquoi euh, lii di CNTS CNTSFC mooy bi nga jiite tey ak euh, UNSAS ak CSA di séddoo xaalis bi xamuñu 300 millions la xamuñu ñaata 600 millions la euh, ñu ngi naan tamit ci biir euh, mbir mi tamit am na tamit lu ñu naan l'émiettement du mouvement syndical bu ñu nemmeeku mais il y a tellement de choses nee moom moo tax sax maanaam jafe-jafe di jànkonteel ñu gën ko yëg parce que vous apparemment entre guillemets suñu sukkandikoo ci ñenn ñi nga xamante dañuy yëkkati ay kaddu yu wóoroo wala yu wuute yi ngeen di yëkkati nee nañ sax ab genre deal dafa am entre yéen ak l'État Euh, jafe-jafe mouvement syndical dama jàpp ne buñ ko analyser ci façon boobu rek duñu trouver cause yi mouvement syndical c'est vrai ñu ngi ci ay jafe waaye subvention yi ñuy joxe taxul euh, leneen lu demee noonu taxul il faut que ñu analyser contexte yi mm-hmm. évolution historique mouvement syndical boo ko boo ko boo ko révisité très rapidement da ngay gis ne am na trois temps yu nga xam ne moom le mouvement syndical di vivre naissance su mouvement bi vers les années 1700 expansion mouvement bi mouvement syndical bi nga xamee ne révolution industrielle la première la deuxième et la troisième ñëw na ba ñu fexe ba gën a lëkkaloo ba mouvement syndical transcender frontières yi ay international am ak jamono ji nga xam ne dafa tombé ak troisième millénaire ñu koy wax mondialisation waxuma c'est le déclin du mouvement syndical mais en tout cas c'est la traversée des déserts du mouvement syndical donc trois temps yooyu yëpp il faut nga analyser ko pour comprendre jafe-jafe yu ñu nekkee nii ba tax na <clears throat> au début ñetti mouvement revendicatif moo amoon mouvement revendicatif politique mouvement revendicatif économique porté par les capitaines d'industrie ak le mouvement revendicatif social porté par les syndicats tey jii ci troisième millénaire boo ko seetloo mouvement revendicatif social bi nga xam ne syndicats yi ko porté woon dafa éclaté il y a les consommateurs qui revendiquent une partie de notre mission il y a les droits de l'hommiste il y a les altermondialistes et d'autres ONG yu nga xam ne daanaka ñu ngi partager mission wu syndicat. ce qui veut loolu xam nga am na ba pare. évolution technologie ñëw dal ci kaw syndicat bu baax a baax parce que boo ko seetloo ni àdduna bi di doxee dafa am benn benn genre euh, complot mënu ma wax sax complot mais en tout cas am na alliance diggante ñaari mouvement revendicatif mouvement revendicatif politique ak économique fi nekk dañu am alliance mm-hmm. te mouvement syndical ba tey jii moom dafay dafa am jafe-jafe pour retrouver son unité dans sa mission ak dans sa composition parce que bu njëkk ba bi may wax ne bi révolution industrielle yi amee mais les les les l'élite intellectuelle engagée était aux côtés du mouvement ouvrier donc l'élite intellectuelle et le mouvement ouvrier ñoom ñoo porte woon le combat du du syndicalisme la première internationale ouvrière a été créée le 27 Euh, septembre 1867 ou 68 quelque chose comme ça à Londres et l'adresse inaugurale était écrite de la propre main de Karl Marx donc et d'autres toutes les internationales ouvrières sont portées accompagnées par ay intellectuels yu mag donc tey jii boo xoolee mouvement syndical da ngay gis ne y a une désunion désunion am na entre le mouvement ouvrier et l'élite engagée et même l'élite syndicale mooy li ngeen wax sànq te man jàpp naa ne ñoom tooguñu rek nii ne syndicat yi amatuñu doole nañ jënd déedéet am na phénomène bu nga xam ne il faut ñu analyser ko profondément syndicat d'élite yi nekkatuñ dans le mouvement ouvrier loolu ça fait partie de notre de notre ci suñuy difficulté beneen difficulté bi mooy à côté de la désunion des entités du mouvement syndical il y aussi la dispersion des forces syndicales hmm. donc am na ñaat jafe-jafe yooyu nga xam ne il faut que ñu liggéey ci

am centrale syndicale yi nga xam ne day regrouper syndicats yu bëri. bien sûr mais vingt mais vingt quatre c'est beaucoup donc constitution yeeg ni ñuy fonctionner xëy na du du du benn waaye li wóor te wóor mooy mouvement syndical il faut que ñu jéem a toog analyser situation bi jéem a xool nu ñuy def pour recentrer waat suñuy stratégie seet nu ñuy def pour régler encore mieux problème. affaire xaalis bi yokkul xar bi karaw. affaire xaalis bi ñu leen di jox. xaalis bi xam nga. nu mu demee noonu xaalis xaalis bi. wala wala hérite damay damay damay koy laaj question. ci loolu xam nga nee na am na hérite yoo xam ne pratiquement par exemple boo xoolee inspecteur des impôts ak ñi nga xam ne bokkatuñu ci waaw maanaam am na une catégorie yoo xam ne dugg yow loolu noo ko jàngatee lan moo war a mënal euh, ñooñu gis ñu seen bopp par exemple ci syndicat yi nga xam ne moom ngeen di incarné. bu nga xam ne amaguñu les solutions waaye li wóor te mooy. phénomène la bu nga xam ne war nañ ko jàngat tout comme d'ailleurs phénomène gilets jaunes yi en tout cas évolution bi dafa on doit se remettre en cause xalaataat forme d'organisation yi ñu doon doxee ba tey est-ce dox parce que évolution bi ni ma ko waxee nii dañu war a continuer analyse bi pour xool lan moo tax situation yooyu am mais man jàpp naa ne évolution bi mouvement revendicatif syndical dafa jàkkaarloo ak ay adversaires yu bëri même l'évolution technologie est contre le mouvement syndical ba tax na xaalis bi ngeen di wax nii. Mhm. man jàpp naa ne xaalis bi warul xaalis bi warul warul nekk coow ci biir syndicat par pourquoi parce que organisation syndicale sont d'utilité publique comme les partis politique et la presse lu tax ñuy subventionné ñooñu ñii di laaj subvention ñu accepté leen subvention yi te nangu luñ ko syndicat yi te àdduna yépp dañuy subventionné seeni syndicat parce que syndicat dafa am beneen mission bu nga xam ne de formation mission de stabiliser le climat social mission de dialogue subvention bi c'est depuis Ablaye Wade Ablaye Wade moo waxul ne dina dañu revendiquer ne mouvement syndical war nañ leen accompagner comme ni ñuy accompagner la presse. lu leen métti mooy pourquoi ñu limité ko ci quatre centrales syndicales yi. voilà dafa war a nekk a ah, jiitu yéen ne. Hmm. dañuy subventionné syndicat Ablaye laaj ne. pays africains yi lu ñuy def ñu ne benn ñu ngi joxe 300 millions mu ne moom il donne 600 millions. ak yeneen pays ak yeneen ñu koy def en Afrique en Europe déjà loolu nekkatul problème alors ba mu waxee ne daf koy joxe. ñun ñii CNTS/FC bokkoon nañ ci ñi bañ ne duñ ko joxe gum léegi parce que jàpp nañ ne buñ dee subventionner les centrales syndicales dafa war a renforcer le mouvement mais waru ko affaiblir te bu fekkee dañ teg xaalis bi ci table bi ne ku nekk syndicat ñu jox la bu boobaa on était 18 dinañ nekk 100 ñu ne kon buñ ko joxe ñun dañu opposé woon ci loolu il faut que ñu am clé de répartition bu nga xam ne day renforcer mouvement bi et non daf koy affaiblir. loolu indi woon na coow parce que jàppoon nañ ne ñun sax dañu contre certaine ñu ne nañ xaar ba ñu def élection de représentativité bu ñu defee élection de représentativité ñi nga xam ne liggéeykat yi wóolu nañ leen ñu am clé de répartition démocratique bu nga xam ne liggéeykat yi seen bopp ñoo ko jox centrale syndicale yi sur cette base ñu jox ñu soog a répartir euh, subvention bi subvention bi demul ci poste centrale syndicale yi nga xam ne dañu nekk ay centrales syndicales yu légitime ba pare nekk ay interlocuteurs crédibles yu état bi ak employeurs yi mais ñooñu te liggéeykat yi fal leen ñu war a fay bourse du travail war a former ubbiwaat école yi pour que li ma junjoon léegi. forme de revendication yi ak remise en cause technique de revendication yi ak technique de lutte yi ñu mun ko étudier approfondir ko te organisation syndicale ñëpp xam nañ ne amul moyen. mais est-ce que xaalis boobu également. Mais, entre les membres. Mhm. les membres du même syndicat. est-ce que ñu ngi koy utiliser de manière claire. est-ce que am na transparence boo. xam ne ça ne pose aucun problème parce que syndicats yi sont conscients que xaalis bi la état bi di jox mën na la envoyer inspecteur euh, ni ñu koy waxee day. contrôleur. Euh, ah. suñuy comptabilité ko gérer day dugg ci compte comptabilité yi di ko gérer donc centrale syndicale représentative bi dañ leen di tabaxal bourse du travail jël fonctionnement bourse bi mais loolu ak subvention benn la. léegi comme yàlla def na Sénégal dafa am ay jafe-jafe yéen a ngi casse système de rémunération bi est-ce que 600 millions yooyu mënuñu jël yéen travailleurs yi ñu xool nu leen di ko séddalee. 600 millions lañ jëloon engagement ne dañ ko joxe mais mosuñ joxe 600 millions. 300 millions lañ joxe presse bi ñu ngi leen di joxe ñaata. on n'a rien contre on n'a rien contre la presse. mais ñun amuñu problème yi ngeen am quand même ñun amuñu mais yéen est-ce que yéen mën leen jël xaalis boobu ngeen séddale ko seen biir boobu. Cheikh Cheikh Cheikh presse boobu problème yëpp. non xam naa loolu mais non Babacar boobu beneen débat bu dugg si débat bu bàyyi. damay bañ a jàpp ne bokkul beneen débat la organisation syndicale. subvention mënu ko tere xeex xeex yi mu war a xeex. dafa fekk ne nag période yii subvention bi jógee bu ci àdduna bi yëpp organisme mouvement syndical am nañu am nañu jafe-jafe hmm. tey jii 100 ans après après après la naissance de l'OIT l'avenir du travail se se pose on va poser, sous on... forme de questionnement. ça veut dire que. ce, ce sera le dernier point de cette émission le thème qui a été retenu cette année au Sénégal. waaw kon tey jii li ñu war mooy. Hmm. def lël bu nga xam ne dañu war a am un nouveau contrat social parce que li ñuy li li ñuy yoot mu ëpp solo fuuf détails yi ñuy discuter tey jii ñu ngi robotiser l'emploi la main d'œuvre tey jii ñu ngi numériser la finance ñu ngi numériser l'industrie bés bu ñu terminer numérisation la finance les banques vont disparaître les les les les les les assurances vont disparaître combien d'emplois vont mourir bés bu ñu terminer la technique de la robotisation ci ban base maintenant la ñuy de façon juste la production de la richesse tey ji un pour cent de la population mondiale dé ñoo ñoo détenir ñoo téye quatre-vingt-deux pour cent de la richesse mondiale ba pare ñu continuer di affaiblir le travail di robotiser di di wàññi main d'œuvre di wàññi emploi di di di industrialiser di di di di la finance et tout donc ñu ngi jëm ci ay questionnement yu nga xam ne quel sera l'avenir du travail d'accord quelle sera la base de la, la réglementation pour la répartition des richesses est-ce que ce sera le salaire qui sera la, la, la, la base sur laquelle on doit, répartir, on doit répartir les richesses est-ce que ce sera d'autres formes voilà des questions yu nga xam ne moo ëpp solo fuuf ñu jàpp ne Sénégal dañuy subventionner centrale syndicale yi pour 300 millions loolu mënul euh, a renforcer ah. syndicat yi te li ñuy subventionner jàpp na ne doyul bala muy yegg si robotisation ah. xam nga am na ay yoo xam ni qui sont là patents et réels mm-hmm. maanaam euh, liggéeykat yi dañoo nekk dans une situation précaire xam nga yow avant sax ngay ñàkk sa liggéey déjà yaa ngi bàyyi situation précaire te ñi ngi ñàkk seen liggéey te amagul robotisation amagul dara loolu aussi gouvernement bi il faut que état bi daal siy wax dara aujourd'hui ñëpp xam nañ ne ay contrat yi léegi c'est des contrats précaires amatul ay CDI dans beaucoup d'entreprises yi nga xam ni c'est des grandes entreprises dañu jël nit ñi ay tests de travail la ñuy doon essai lañ leen di defal pendant trois mois reconduiraat les mêmes contrats te loolu gouvernement ba nga ko xool daal si gëmm. xam nga lu ko waral je crois ñi ngi xaar aussi Karim dañu euh, fas yéene bien sûr dinaa ñëw ci yow Karim dinaa ñëw ci yow. xam nga lu ko waral. Mm. patronat bi dañu fas yéene xeex pour du patronat bi sax ak état bi xeex pour ñu dem vers la la euh, la déréglementation du code du travail maanaam daal dañu bëgg fi mu nekk nii ñu dem vers la flexibilité de l'emploi loolu moo ko indi mais flexibilité de l'emploi day dugg ci biir li ma doon analyser sànq. gis nga flexibilité de l' question bi mën a woon ne mun nañu ci waxtaan seet naka lañ koy defee waaye dafa am lu bu laajte parce que flexibilité de l' emploi mënoo ko wax ci réew bu mel ni Sénégal bu nga xam ne hmm. on a pas encore le cinq branches de la sécurité sociale on n'a pas l' indemnité de loo de chômage naka nga mun a waxee waxu flexibilité te yow say cinq branches de protection sociale yeggagul amuloo chômage flexibilité di tax ñu koy wax te ña ko nangu hmm. c'est parce que boo amee tey emploi suba nga ñàkk ko ba bëggee amaat emploi di nga am indemnité de chômage. amaguñu loolu ñu ñuy wax waxu flexibilité les questions sont sur la table pare nañ pour discuter waaye dafa am ay condition d'accord alors Karim dama lay bàyyi nga tontu balaa ma la laaj sama yeneen laaj. parce que am na yu bëri que li ngeen fi wax c'est très intéressant mais bëri na bon je retenir na peut-être euh, trois points yoo xam ne rapidement hein. je vais être. Euh, moins généreux que Cheikh Diop <laughs> donc je vais très synthétique bon bi ci njëkk mooy euh, euh, je pense que wax na ci problème mu situation wu syndicalisme je pense que phénomène mondial la il a raison hein euh, Babacar a raison aussi parce que effectivement les élites se détachent un peu du militantisme euh, syndical ça c'est vrai mais partout dans le monde dañuy remarquer la baisse du taux de syndicalisation. muy France di États-Unis di fépp. d'une manière générale même la proportion de travailleurs couverte par les conventions collectives il a été démontré que day wàññeeku di wàññeeku di dem. bon ça veut dire que les travailleurs de plus en plus cherchent des possibilités individuelles de régler des problèmes auxquels ils sont confrontés ci biir seen. liggéeyukaay mais loolu bu fekkente ne am na pàcc boo xam ne da nga ko jagleel avenir du travail euh, je pense que mën naa ci bañ a sori. bien sûr parce que il a posé aussi des des problèmes très importants. te mm-hmm. ñu ngi ci centenaire bi. Mm-hmm. te ñun am na lu bëri lu ñu ciy préparé di réfléchir sur euh, euh, impact bi nga xam ne les la numérisation de l'économie la création même d'une société numérique ban impact la am sur les emplois. aussi bien les emplois d'aujourd'hui que les emplois de demain. Parce qu'il a été démontré que tey les compétences ne seront plus forcément celles qui seront les bones pour occuper les emplois qui vont venir dans quelques temps. Donc, nous avons une problématique qui est avenir du travail. Mais pour répondre ci question yi damay vais dire que le problème de subvention. Subvention, euh, je pense que yoon la ma wax lu leer loo xam ne euh, quand à la décharge des centrales mënuñu wax ne dañ signé pacte bi pour la subvention parce que boo xoolee historique euh, subvention bi euh, historique pacte bi pacte bi partenaires sociaux yi ñu ngi ko signé ak gouvernement bi le 15 avril 2014 boobu waxaguñu waxu montant ou quoi que ce soit te pacte bi Euh, ce serait un peu réducteur ñu réduire ko. Euh, ñu ñu ñu teg ko rek ci subvention. 15 mesures. pacte boo ko xoolee quinze mesures. oui la aboutir dans le cadre d'un plan d'action boo xam ne ñu ngi ko valider en 2015 dans le cadre d'un conseil présidentiel. mais lan moo indi subvention bi da ngay xool le pacte boo demee ci article bi mooy fi nga xam ne la ñuy traiter les attentes des partis. travailleurs dañu exprimer carrément euh, clairement seen attente pour diir que désormais comme ni mu ko waxee léegi subvention euh, war na mën a nekk mais nañ ko jox les centrale les plus représentatives ñu ñëwaat ci article euh, dix su pacte bi mu nekk maintenant engagement des partis maanaam engagement bu engagé engagé gouvernement bi engagé ñëpp comme quoi effectivement dinañ appuyer les centrales qui sont euh, désignées les plus euh, représentatives. mais am na ñu ne est-ce que ce pacte là waruñu ko évaluer ce pacte de stabilité sociale non bien sûr bon ko évaluer bon c'est-à-dire que pacte bi. pacte bi kañ la waroon jeex sax je pense que 2015 jeex na depuis waaw waaw bon euh, il faut dire que pacte bi. Hmm. Euh, c'est un document extrêmement important boo xam ne kenn waxul kenn mënul wax moo ko moom dafa impliquer centrale yi impliquer patronat impliquer État. gouvernement oui. mais impliquer société civile et même des universitaires il y a eu l'ancien conseil euh, national du dialogue social may rendre hommage à, au président Youssou Wade mm -hmm. qui a été euh, disons euh, très central dans oui. le dispositif mm -hmm. qui a eu à modérer présider beaucoup d'ateliers etc mhm. donc il faut reconnaître que pacte bi ñëpp ci liggéey donc bañ ci demee dafa am ay volets yoo xam ne dafa laaj dafa laal emploi am lu laal euh, condition de travail am lu laal situation de l'administration du travail am lu laal négociation collective am lu laal pouvoir d'achat am lu laal même productivité ba am na ñu doon wax ne sax euh, à l'époque pacte bi mooy la feuille de route sociale du plan Sénégal émergent parce que dafa am ay projection yu bëri euh, gis na gisoon nañ ko Euh, yu wane ni bu ñu utiliser le sociale à bon escient dinañ dem ba am aujourd'hui une bonne productivité au travail mais aussi la compétitivité de nos entreprises donc subvention bi bu 300 millions bi mu ngi apparaître bi plan d'action bi juddoo plan d'action bi mu ngi juddu en 2015 ñu valider ko dans le cadre d'un conseil présidentiel plan d'action boobu nag moo ñëwaat parce que le pacte c'est des c'est des c'est des engagements de chacune des parties hein mm -hmm. je ferai ceci je ferai cela mais c'est le plan d'action qui a défini les modalités de mise en œuvre du pacte ci plan d'action boobu le proposition génnee ne nañ jox subvention mais jamais euh, 600 millions n'ont été remis au central jusque-là c'était 3 millions parce que il faut non, dire qu'il y avait, une projection budgétaire pour l'ensemble des engagements du pacte mais tout n'a pas été respecté tout n'a pas été appliqué parce que les moyens ne sont pas toujours disponibles. parce que pour, les, euh, mais, les centrales syndicales qui ne reçoivent pas mais li ñu koy reproché li ñu koy reproché aussi dafa bëri. ay engagement yoo xam ne souvent. Mm-hmm. le gouvernement da koy jël. mais mais nag mais nag du ko appliqué. non non non non, non. Les, engagements. même par rapport à important merci euh, bon je vais rappeler que en 2017 def nañ benn parce que le pacte aussi dafa amoon ay organes. Il y avait ce qu'on appelle le, le, comité technique, il y avait le comité conseil d'orientation stratégique, il y avait le secrétariat exécutif. Le comité technique, réuni en avril 2017 pour évaluer. C'était une première évaluation. Euh, nous avons fait évaluation, qui euh, un certain nombre d'engagements ont été respectés. Par exemple, Soumala la retraite à 60 ans dans le secteur privé, ça faisait partie des, des engagements. qui figurait dans le pacte mais aussi dans le plan d'action il a été respecté en 2015 su ma la bon la subvention ci la euh, la mise en place la mise en place du haut conseil du dialogue social, du dialogue social. Mmh. c'était un des engagements du gouvernement face aux partenaires sociaux pour rénover le dialogue social et l'amener à un niveau supérieur boobu ça a été le décret. mais mais, mais Karim il a été euh, installé euh, je peux citer beaucoup. bien sûr mais mais également dans le cadre aussi de la révalorisation ou bien xoolal ñu ngi koy évaluer un peu parce que les centrales yi nga xamante ne elles ne disposent pas quand même de ces financements nee nañ est-ce que ce n'est pas bien aussi ngeen xoolaat loolu ngeen bañ a yemale lii di financement bi ci quatre centrales syndicales yi. bon alors ça ça aussi c'est c'est c'est c'est une question pertinente c'est-à-dire que. war nañ mën a léegi. Hmm. bon après avoir tenté quelque chose war nañ mën a évaluer maintenant. dans le cadre de cette évaluation mën nañu xool euh, et ça va se faire d'ailleurs tout, le monde est d'accord hein cette année lors de notre euh, dernière réunion sur les cahiers de doléances qu'il faut maintenant approfondir l'évaluation du pacte donc on va vers ça effectivement parmi les préoccupations il faudra poser le débat sur comment rendre plus inclusif le dialogue social peut-être que am na koo xam ne xëy na amul 10 pour cent bon peut-être que am na 5 pour cent wala 5 virgule kooku quand mun nañ ko jàppee comme koo xam ne. et donc ce genre de question mën nañ ko poser pour xool des modalités euh, d'inclusion. Mm -hmm. sans remettre en question les acquis des centrales les plus représentatives mais mun nañ am ce genre de débat là mais man awma ci certitude. mais à mon avis. alors euh, waruñ am une stratégie qui exclut totalement. Mm-hmm. les plus représentatifs doivent continuer à négocier avec le gouvernement et à signer des accords. Mm-hmm. Mais il faut que, d'une part, centrale représentative ak non représentative yi ñu am benn dialogue direct. Alors. Mais que l'État aussi facilite des modalités. Oui. d'inclusion pour que Euh, vraiment ñëpp gis ci seen bopp. alors Karim euh, sànq ñu bëri ñu ngi koy junj Cheikh Diop junj na ko junj nga ko Babacar xaw na ko junj mais balaa maa ñëw ci Babacar dama bëggoon juste quand même laaj la benn laaj est-ce que aujourd'hui environnement des affaires bi nekk Sénégal est-ce que quand même environnement économique bi est-ce que mën nañu permettre ñu absorber quelque chose comme euh, un million d'emplois comme ni ko nguur gi waxee est-ce que loolu mën na nekk parce que ñu ngi naan affaire day tëjëg le travail est menacé Bon, ça me permet de, de répondre à, <laughs> à Babacar d'ailleurs, euh, qui disait qu'emploi uni créé, etc. Bon, on a okay. l'avantage d'avoir quand même euh, les statistiques du travail. Mmh. Bon, j'avoue que les chiffres que vous recevez souvent mmh. en termes euh, d'emplois créés, c'est des emplois vraiment décents. C'est-à-dire, euh, mmh. c'est un CDI, c'est quand même un emploi décent. parce que day respecter un contrat qui est enregistré mhm. ça veut dire qu'il respecte même le, le minimum de disposition muy CDI ak CDD ñoo ci ëpp CDI CDD bon c'est vrai qu'après certains CDD se transforment en, en CDI mais on ne peut pas que emploi précaire rek la ñuy créer par exemple 2018 euh, 600 euh, disons 66 000 contrats de travail ont été enregistrés dans les inspections du au niveau national. 66 000 euh, contrats. C'est-à-dire, dans ces contrats maintenant, vous avez des CDI, des CDD. Donc, vous avez un de types de, de contrats. Mais on ne peut pas dire qu'un CDD, quand même, parce que, mmh. euh, point de vue de la rémunération, n'est-ce pas, la base de la rémunération, des primes, etc., c'est vraiment les, les mêmes différences, puis peut-être moins durée. Mmh. mmh. waaw bon alors moi jàpp naa ne. waaw pacte bi c'est un élément important bu dialogue social. élection de représentativité yi élément la bu am solo ci dialogue sociale de l'instant où ñaari élément yu am solo yu apporte ay réformes am na war nañ toog revisiter système de dialogue social bi adapté ko ci condition loolu la def parce que élection de représentativité bu ñu ko defee. Hmm. dafa war am sens. résultat yooyu dafa war am lu mu jariñ waaye résultat yooyu aussi warul am lu mu yàq. dafay consolider waaye warul yàq ba tax na bi ñuy def élection yi jël nañ matuwaay pour ne bu ñu defee élection yi ba liggéeykat yi désigné ñi représentative seuil bi nangam la bañ ko njëkkee def fixé wu ñu woon seuil mu indi ay jafe-jafe deuxième édition bi ñu fixé seuil waaye bi ñu fixé seuil. impact bi mu war a am ci dialogue sociale bi réfléchiruñ ci ba tax na ñun CNTS/FC réfléchir nañ ci ñun dañ jàpp ne élection sociale warul créer ay noon ci biir mouvement syndical parce que bi ñu defee élection bu pare ñi nga xam ne amuñu seuil de eh, représentatif ñu dañu jàppe presque ñi représentatif comme ay adversaire wala ay noonu te warul demee noonu nee da ngeen lëkkaloo état bi élection élection yi ñu koy def dafa am lu taxoon dañ daan ñëw ci table de négociation. délégation bi fa xaj amul benn salle bu ñu mës bu ñu mës a bu ñu mu abrité ay négociation euh, ñu xaj fa amul. am na ñu daan taxaw ba négociation yi pare mais loolu tamit yan wul maanaam ñu ne kon il faut que ñu rationaliser négociation yi rationaliser négociation yi ku représentative wul doo dem ci table de négociation mais le dialogue social est beaucoup plus transversal que les négociations. tout à fait. la négociation est un élément du dialogue social kon dañu jàpp ne dialogue social ku yor syndicat war nga ci mun a bokk mais négociation ku représentatif moo ko war a def ñun noonu lañ ko gisee dialogue social mun naa ci am jël exemple au conseil bi ñu mettre sur pied war na mun a convoquer n'importe quelle centrale syndicale bu représentatif ak bu représentatif waxtaan ak moom secteur éducation def nañ élection man jàpp naa ne am na waxtaan bu ñuy def ca sali balaay école di tijji pour ñu revisiter la situation de l' école. Mm. mais loolu war nañ ci mun a invité syndicat yi éducation yëpp ku nekk joxe ci sa xalaat. bu desee nag lu dul dem di négocier ji ñu représentatif ñooy négocier waaye foofu it ñun am nañ ci responsabilité ñun syndicat war nañu fexe ba créer ay conditions yu nga xam ne ñi nga xam ne ñoo représentatif bu ñu balaa ñu dem di négocier en amont ñu gisee suñ biir ñu ñëpp. pour que ñun ñiy toog ci table de négociation ñu porté waale préoccupations yi ñi nga xam ne ils ne sont pas représentatifs mm-hmm. système boobu il faut que partenaires sociaux yi aide dimbali ñu pour ñu consolider ko état bi surtout donc ñun aussi en tant que syndicat bu ñu defee élection ba pare ñi nga xam ne ils ne sont pas représentatifs mais ëllëg mun nañu représentative kon war nañu d'accord ci système bu nga xam ne bala ñuy dem ñu créer cadre parce que dañu daan def intersyndical daan def unité di def xeetu cadre yu nekk cadre yooyu élection yi waru ko yàq daf ko war a renforcer. lu leen sonal moom mooy l'émiettement du mouvement syndical mais lu leen tee dem ngeen booloo seen biir parce que gis naa ne tey fële à la place de l'obélisque da ngeen créé benn coalition des centrales syndicales et c'est très joli quand même ah plus grandes centrales syndicales boole mais qu'est-ce qui vous de d'appliquer ça ngeen def ko mu doon vraiment man jàpp naa ne élection yi sax élément la bu am solo pour aider à la reconstitution de l'unité ci façon bi ma wax ni parce que normalement li jaadu woon mooy bu fekkente ne ñun ñëpp mission ñoo ko bokk ñoo bokk mission bi te njëriñu mouvement bi moo ñu tax a jóg bañ defee élection bu pare ñi nga xam ne ils ne sont pas représentatifs waroon nañu waxtaan xool ñi ñu gën a amal proximité idéologique parce que quatre centrales ñoo génn quatre centrales yëpp bokkuñu pensée syndicale bokkuñu euh, idéologie ñi nga xam ni dañoo représentatif wul mun nañu xool ci quatre centrales yooyu kan la ci gën a amal proximité idéologie mu waxtaan ak moom pour ñu trouver des moyens de de fusion. comme yéen ñi nga xamante ne ci CNTS ngeen jógee est-ce que yaakaar ne ni mun ngeen delluwaat ak CNTS comme ça. loolu jeex xam nga xam nga tey jii CNTS FC est un courant courant de xalaatatul dem feneen mais bañuñu. keneen te mu waxee loolu tamit. ah non attends bañuñu unité. man de bi ñuy def élection li ma waxoon camarades yi c'est clair hein. Hmm. dama leen waxoon ne leen. si su fekkee suñ courant de pensée bi euh, liggéeykat yi assumé wuñ ko entériné wuñ ko nañ xool fu ñu bokk. Hmm. ñi gën a prox ñi ñu gën a amal proximité idéologique nañ dem waxtaan ak ñu bokk ko. mais su fekkee courant de pensée bi dafa confirmé wu. Ah. mais ne mais xam nga ñoom ñi nga xam ne ni aussi. Hmm. ñooy centrale yi ñuy choisir les hmm. quatre centrales syndicales. il faut que bu fekkee ñële fekk si leen dans un premier temps il faut que ñu wane en charge les revendications des petits en tout cas des petites centrales <laughs> ma du terme yi nga xam ne bon mën nañu dem toog si cene mm-hmm. maanaam bu ñu defee nga xam ne jël nañu en charge mm-hmm. les revendications da xam ne ñooñu mën na tañoo toog si table négociation bu yàggee ñooñu dañuy obligé fekk si leen parce que ñaar yëpp ñoo maanaam ñooñu ne ñun demuñu donc nañu dem fekk ñi wala ñii nga xam ne ñooy dem aussi daal boole ñële si seen revendication ba bu yàggee confiance boobu dina am. Mm-hmm. pour ñoom ñëpp ñu mën a. xam nga lan mooy solution. am na lu may yokk gis nga ñi représentatif. waaw dafa mm-hmm. ñoom ñoo war a am oyofu dem seet ñi représentatiful yéen est-ce que da loolu. Mm-hmm. mais liggéey boobu ñun ñu ngi koy def CNTS/FC mu ngi koy def parce que ñu jàpp nañ ne. reconstruire unité bi c'est à deux niveaux. ñun ñi nga xam ne ñoo représentatif sax war nañ mën a toog waxtaan pour jéem a seet ban solution la ñuy def pour reconstituer l'unité soit ñu nekk ñaari centrale wala ñett maximum. wala bu mënul nekk ñu am cadre de lutte unitaire te boobu tàmbali nañ ko boobu mun na am ci biir cadre de lutte unitaire bi sax mun nañ dem ba ay fusion am ci suñ biir loolu man dàqu ko mais ñi nga xam ne ñoo représentatif parce que nit ki su ngeen demee élection nga gañe ko hmm. soo ko bàyyee fa mu toog du fa jóg danga war a dem seeti ko ñun sol nañ suñu dàll d'abord dem seeti central syndicat yi nga xam ne bokkuñu ci centrale bi hmm. waxtaan ak ñoom historiquement wax leen histoire mouvement syndical lu tax ñoom ñu war a ñëw rejoindre centrale yi am na ci ñu ko dégg ba ñëw donc le travail n'a pas été vain pourtant hmm. dem nañu seeti SAEMS mooy médecin yi hmm. seeti nañu les inspecteurs du travail seeti nañu les inspecteurs ah, pardon les hmm. inspecteurs euh, des euh, de l'enseignement seeti nañu les inspecteurs des impôts et domaines seeti nañ inspecteur trésor ak travailleur trésor seeti nañ SAEMS seeti nañ CUSEMS syndicat délit yëpp seet nañ leen ñi nekk en dehors des centrales syndicales waxtaan ak ñoom rappeler leen histoire mouvement syndical ak fa bu cosaanoo ak solidarité bi ak unité nécessaire bi nga xam ne ñaari entité yooyu l'élite intellectuelle ak le mouvement ouvrier war nañ ko am mais am na ñu ko comprendre décider. Hmm. dem dem ci centrale yi bokk na ci seen am na ñu nga xam ne ñun ñoo leen seeti convaincre leen mais ñëwuñu CNTS FC te nangu nañu loolu dañu dem CNTS. d'accord muy médecin yi xam nga loolu tamit lu baax. loolu liggéey bu baax la am na solo maa ngi ñëw Babacar. Babacar foog ma foog ma ñëw ci yow parce que dama la bëgg a laaj benn laaj. Mhm. yow Babacar est-ce que mën nga dund euh, chaque mois ak cinquante mille francs. Eh, loolooy problème bi. xam nga SMIC bi mooy loolu. waaw mais euh, loolu doy parce que xam nga ah, loolu c'est très important. parce que nécessairement revendication yi. Euh, pour les travailleurs dafa am des aspects yoo xam ni peut-être syndicats yi mënuñu ko jël en charge euh, c'est c'est heureux d'ailleurs de l'entendre parler xam nga mouvement consumériste yi. ñoom am na loo xam ne prolongement la travail bi syndicat yi def. aujourd'hui le loyer mais xoolal rek l' exemple du loyer. loolu moom loolu moom xam naa ne se est le directeur du travail qu' aujourd'hui peut être euh, buy wax it day wax en tant que en tant que sénégalais. mais mais je crois que loolu Cheikh il faut que c' très important le président Macky Sall le loyer à Dakar mais amul benn salaire bu ko mën a gàddu amul benn salaire bu mën a gàddu le loyer à Dakar. mais ñu loolu laal comment ils font ñoom waxtuma la ak ñi nga xam ne mais le transport rek aujourd'hui euh, yow gis nga des cas sociaux que tu regardes euh, vois un partout parce que bi may wax xam nga aussi si précarité de l'emploi c'est quoi c'est que ñi ñu enregistré peut waxuma leen mais euh, d'autre part am na beaucoup de jeunes yoo xam ne yaa suñu ñu ngi xëy di liggéey waaye condition yi ñu leen teg pour ñu liggéey dafa doy waar ça veut dire que c'est des yoo xam ne au bout d'un moment sax bu ñu la defee trois mois de test euh, six mois bu ñu xalaatee ni yow mën nga créer entreprise bi problème sax parce que yaa ngi commencé am ay dossiers yoo xamee ni ëllëg boo demee inspection du travail man nga am ndam dañ lay dàq indiwaat keneen donc ce changement d'emploi ñu koy def et puis ay sociétés yoo xam ne yu ngande yu mag yoo xam ne recruter ñu wala léegi beneen système bi ñu jël mooy léegi jëlatuñu dañuy jël des entreprises yoo xam ne sous sous traitance bu ñuy recruter ñooñu ñooñu ñooñu la donc ñoo ñooy recruter. bu ko defee la grande entreprise bi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko dootul jëlati benn employé te telle sorte que kenn mënu koo daan dara day jël ay petites sociétés de sous-traitance ñoom ñooy jël di recruter à des yoo xam ne impensable. Mm. aujourd'hui boo xoolee gardiennage les sociétés de gardiennage ñi nga xam ni ñoom la ñu xalaat ni peut-être ñoo gën a tuuti salaire si booy joxee exemple mais yow koo xam ni yaa ngi dëkk daanaka banlieue nga dëkk nga dund fa ak sa njaboot booy dem doo liggéey xalaatoo yow jël taxi wala nga am oto. car rapide ngay jël boo génnee fii Dakar bala ngay yegg banlieue tu vas faire deux heures temps au moins vingt deux heures jëm kaw nga yegg sa kër. nga war a xëy six heures du donc c' ça les mm. conditions de précarité. Mm. des travailleurs sénégalais dafa graw ñi nga xam ne sax liggéeyuñu sax peut être ñu ngi jàmm parce yaakaaru leen si dara waaye yow ngay liggéey te mënoo faj dara dara. loolu daanaka booy xool liggéey yu bëri yi am Sénégal moom moo fi nekk. mais man lu ma jaaxal mooy mais est-ce que syndicalistes ñu war nañu bàyyi ñoom ñuy fay nit cinq cent cinquante mille francs. ñu war nañu bàyyi ngeen simik cinquante mille francs. waa clarifié fukki junni. dëgg bu baax la. bariwul solo wax dëgg yàlla baax na nag parce que biñ koy biñ koy yokk bi ñuy laata yokk SMIC fekk na. amul amatul benn catégorie presque bu bu nekk ci SMIC mais nag quand même revendication la bu ñu satisfaire il faut que ñu reconnaître loolu te lu baax la tamit parce que am na incidence ci yeneen yeneen prime yu ñuy calculer. am na ci incidence dañuy jox dañuy jox le directeur du travail tey mooy augmentation de salaire yu ñuy réclamer nañ ci wax. yi ngeen di réclamer je pense que. <laughs> bon SMIC ce qu'il faut retenir. Babacar nee nga duñu yokk de. Euh, pour rassurer Babacar ak euh, même euh, Cheikh parce que Cheikh a beaucoup insisté. Mm, sur ça je pense que c'est une. façon de nous amener à dire, euh, euh, disons, à rappeler certains principes. bon SMIC bi comme ni ko Cheikh waxee pratiquement boo demee dans toutes les branches d'activité le salaire mm-hmm. catégoriel minimum dépassé na SMIC bi mm-hmm. est-ce que comprendre nga mm-hmm. cest dire dans toutes les branches secteurs d'activité boo jël le salaire le plus bas catégoriel hors prime dépassé na euh, SMIC dépassé na SMIC bi mais SMIC bi influence am impact am c'est dans les modalités de calcul de certaines primes. lu mel ni par exemple prime de panier. de panier dañ lay wax par exemple boo amee prime de panier euh, boo réunir conditions yi ci journée bi par exemple ñu multiplier le trois fois le SMIC horaire nga am ko dans la journée moom lañ lay calculer bu weer bi dee ñu dajaleel la ko mu nekk prime. loolu mooy premier aspect bi deuxième aspect faut pas ñu confondre euh, SMIC. ak euh, salaire euh, disons j'allais dire salaire réel de base parce que salaire de base déjà de toutes les catégories dépassé nañu SMIC bi mais dafa am ay prime ak ay indemnité mais qu'est-ce qui vous empêche dans ce cas ngeen jël salaire de base bi yóbbu ko par exemple ba cent mille francs pour assurer la dignité humaine non loolu laa lay c'est-à-dire que boo demee c'est-à-dire que dans, dans le privé da ngay dem euh, dem dans un secteur salaire catégoriel bi nekk peut-être euh, première catégorie bi bi gën a tuuti nekk par exemple cinquante neuf mille wala soixante mille nga dem feneen tu peux avoir plus et selon c'est selon la l'emploi tenu ak la catégorie ak classification professionnelle bi nga xam ne moom la convention collective bi ak annexe de classification yi prévoir mais salaire bi loolu prime de transport bokku ci par exemple rythme de transport rek yokk na en 2015 déjà mu ngi plus de 20 000 20 800 je crois quelque chose comme ça. Euh, am na lu mel ni ay euh, ay euh, prime d'ancienneté am na ay heures supplémentaires il y a d'autres indemnités je pense que dans dans dans certaines euh, dans certains secteurs sax di nga gis ay accords d'établissement yu def ay conditions de particulières yoo xam ne li ñuy fay travailleurs yi vraiment c'est c'est des sommes. astronomique donc je pense que SPIC bi impact am c'est juste pour les modalités de certaines primes ak yenn prestation même euh, en espèces au niveau de la caisse de sécurité sociale ak yooyu donc booy xool c'est c'est un peu une question certes d'argent mais c'est aussi une question de fierté nationale c'est-à-dire Sénégal dafa mos toujours euh, di rapprocher SMI SMIGam ci bu Côte d'Ivoire parce que actuellement Côte d'Ivoire mu ngi soixante bu nekkee soixante mille Sénégal day par exemple war naa mun a dem ba cinquante sept cinquante huit mais yooyu pays bon y a des pays que je vais pas citer voilà parce que les économies euh, ñoom ñoo ñu xaw a kii tuuti mm. mais on les on les poursuit très bien d'ailleurs mais boo demee dans certains pays du ma leen citer dans certains pays africains di nga fa gis des SMIC de trente et un mille francs on a les Sénégal dafa cher. Mm. waaw waaw mais suñu mbir dafa cher dafa tàng. mais mais parce que même lu waaye Babacar nga koy wax le bon qui a été fait. Ah. n'est pas insignifiant. da ngay fayeeku sax tu te dis mais est-ce que xaalis bi ma fayeeku fan la ma jaar. de 96 à 2018 le SMIC était à 36 243 quand même. Euh, presque doublé quoi. mais quand même c'est c'est un bon. bon un peu moins oui. <laughs> bon ça te donne une idée une indication sur euh, quand même euh, la capacité des partenaires sociaux. à aller vers euh, vers des bons mais contrôle bi contrôle bi Karim de la direction du travail vous avez raison le contrôle des contrats de travail des bon vous avez vous avez raison euh, c'est-à-dire à côté des des contrats de travail qu'on peut qualifier de décents mhm. il y a aussi vraiment des conditions exécrables loolu dëgg pour beaucoup de raisons pour beaucoup de raisons c'est-à-dire l'inspection du travail ne peut pas être partout bon mais day def ay jéego parce que on a remarqué ci année yi que on a réhabilité la fonction de contrôle bon aujourd'hui malgré les effectifs bu ñu jëlee 2018 on a quand même fait plus de 4000 euh, contrôles au niveau national c'est vrai que mm-hmm. euh, bëriwul euh, mais quand je vous donne le chiffre de de 2012 on était à peu près à à 600 contrôles ça veut dire que maintenant mm-hmm. euh, boo demee inspection bu mel ni Dakar mm-hmm. Chaque matin, vous avez des équipes qui vont dans des zones différentes. Est-ce qu'il y a des structures bon. qui ont été épinglées par rapport à ça Ah oui, mais on, peut vous donner le, le, le, tableau des mesures prises à l'issue des contrôles. Il y a, euh, nous avons toujours euh, deux moyens d'intervention. Il y a le, le conseil, et beaucoup d'entreprises sont régularisées après le conseil, mais il y a aussi euh, les, le, le contrôle. Et à l'issue du contrôle, on peut te mettre en demeure on peut aussi te faire des lettres d'observation on peut te convoquer à l'issue du contrôle on peut mën nañ la convoquer inspection du travail nga ñëw on t'amène à régulariser donc tout ça on a des statistiques qui montrent combien de mises en demeure combien de lettres d'observation et cetera et cetera bon maintenant mënuñu dajal l'ensemble des des des c'est comme si on demandait à Cheikh Diaby euh, euh de, de, nous faire le point sur l'ensemble des informations possibles dans la journée à Dakar. Mmh. Votre métier, c'est de rechercher les informations. Nous, notre métier, c'est de contrôler et de trucs. Mais dans, dans, une démarche euh, pédagogique dissuasive. Mmh. Il y a la formation euh, qu'on fait parfois dans les entreprises pour les délégués du personnel. Il y a des, des ateliers de formation, il y a des... Donc je pense que c'est un ensemble de moyens moom la ñuy jël pour pouvoir euh, essayer d'améliorer les conditions de travail. maintenant Alors, il y a la gestion des des différends. d'accord quand les gens sont saisis. oui euh, ils convoquent les parties et. depuis plusieurs années. Mmh. il est constaté qu'il y a plus d'ailleurs de conflits réglés. que de conflits non réglés. Alors, Karim, les statistiques le montrent. Il, y a plus de PV de conciliation, mm et mhm. c'est un règlement, que de PV de non-conciliation. Alors, il faut qu'on termine dans Que vous inspire dans ce cas, euh, le thème du centenaire de l'OIT portant sur l'avenir du travail euh, C'est un, un, thème euh, extrêmement important. Euh, je pense que récemment, l'Organisation euh, internationale du travail, Guinée, ce qu'on appelle le rapport mondial, sur l'avenir du travail bon rapport bi euh, dafa am ay dénkaane yu mu jox benn bi mooy saisir le moment c'est-à-dire ñu xam ban moment lañ nekk qu'on le tienne qu'il ne nous échappe pas beneen bi mooy euh, centrer le programme d'action sur l'humain not programme doit être centré sur l'humain beneen bi mooy redynamiser revitaliser le contrat social ça veut dire que identifié nañ partout dans le monde dans le cadre des instances du BIT dans le cadre des dialogues qui ont été euh, un peu partout mm-hmm. on les appelle les conversations du partenaire euh, du centenaire mm-hmm. il des conversations très profondes sur l'avenir du travail gis nañ comme ni ñu ko waxee léegi numérisation bi am na doole mu ngi mu ngi progresser rapidement gis nañ robotisation bi digitalisation bi Euh, gis nañ aussi euh, les possibilités yi nga xam ne économie verte mu ngi koy joxe ah gis nañ aussi ce qu'on peut avoir en termes d'emploi vert et cetera et cetera donc aujourd'hui euh, mën nañu wax ni la réflexion sur l'avenir du travail ñëpp la interpellé mais il faut qu'on aille vite mais toujours avoir à l'esprit le principal défi du monde du travail mooy lu ñu dugg-dugg ci modernité bi le mandat pour la justice sociale c'est-à-dire il faut que la justice sociale l'équité une transition juste et durable yooyu yëpp ñu garantir ko pour que le travailleur ne soit pas laissé en rade n'est-ce pas dans la progression euh, de ce monde-là qui est extrêmement complexe bon on va vers d'ailleurs des des des dans deux semaines vers des panels de haut niveau mm sur ces thèmes-là euh, quel est aujourd'hui cent de l'OIT Euh, quel est le le ban bilan lañ mun a def ci négociation collective ak dialogue social yan progrès lañ accomplir yan défi ñoo des ban relation moo am entre euh, emploi ak euh, nouvelle technologie mais aussi la question de la protection sociale universelle alors que les ressources se raréfient les défis sont toujours là ñu ngi xool aussi comment étendre la protection sociale vers mooy un peu comme ce que Babacar disait vers les couches les plus démunies c'est ce genre de problématique là yoo xam ne Sénégal mu ngi ciy réfléchir dina am une contribution boo xam ne dina ko yóbbu au niveau mondial pour apprécier les défis et les orientations yi nga xam ne moom la moom la organisation internationale du travail. maa ngi ñëw ak yow tuuti pour le mot de la fin dama bëgg quand même jox kàddu gi tamit euh, Cheikh Diop moom tamit mu am ci ay kàddu yu mu sànni xam nga sànq maa ngi koy laaj nee naa est-ce que quand même avec euh, l'environnement est-ce que tey suñu environnement économique may nañu quand même ñu dem vers un million d'emplois ndax yoo xam koy wax sànq nee ngeen vraiment le monde du travail ma c'est pas pour rien que l'OIT appelle à une réflexion quand même. xam nga environnement économique bi jàpp nañu ne euh, emploi yi nga xam ne existé nañ ba pare dañu am xeetu jafe-jafe emploi précaire yi am xeetu jafe-jafe yi existé ba pare ak entreprise yi ni ñu évoluer dafa demoon ba ñun revendication la woon pour ñu wax état bi dañu doter administration du travail de suffisamment de moyens pour que emploi yi nga xam ne moom mu ci suñ poste ba pare te ñu am ay jafe-jafe te it xëy na njaatige yi eh, wàccoo wuñ ak àqu syndicat yeeg ak ak liggéeykat yi ñoom ñu mun a dem pour xool loolu gis nga eh, progrès yi mu wax nii ne def nañ ko diggante 2008 ak léegi mm-hmm. mais bokk na ci justement revendication boobu nga xam ne dañu bëgg ñu doter inspection yi ak l'administration du travail de suffisamment de moyens parce que jar na ko nag investissement bu utile la bi ci des mooy Sénégal dafa ubbeeku di woo ay investisseurs parmi investisseurs yi muy woo am na ci ñu nga xam ne li ñu imp li ñu exporté fii ci Sénégal ci wàllu relation professionnelle moom Sénégal soxlawu ko damay bañ di tudd ay pays waaye il fokk nag ñu tudd les pays asiatiques léegi lan lañ fi indi tudd Sénégal soxla Ila Touba bi li ma ci daj ak li ñu ci daj ci ay liggéeykat yu nga xam ne eh, ni ñu leen jàppee du noonu. Hmm? ak yeneen te fii mu nekk nii ñoom investir nañu réew mi ñu ngi fu nekk. lan lañ leen teg d'accord nañ ci loolu. waaye lan lañ ñoom lan lañ leen teg. ñu doon liggéey foofu ci Ila Touba. leen jàppee dafa xaw a doy waar. chauffeur yi camionneur yi salaire yi ñu leen di fay contrat yi ñu am dem nañ ci ba oto bu paane sax ñu leen ko fayee ko pour ñu defar ko. Hmm. pour te pour jox la exemple ci kii. dem nañ ba dañuy xëy xëy ne la dàq nañ la ñoom xëy na ca seeni réew dañuy doxale la ñu bëggoon a kii fii ñu bëgg nag réew mi suñuy ubbeeti ay zone industrielle wala ñuy ubbi investisseurs yi ni ñëw ñuy wax ak ñoom bu baax ci li nga xam ni réew mi noonu lay doxee ci wàllu relation professionnelle ak ci wàllu trois parce que bi ci bëri eh, entreprise internationale asiatique yi dañ ko ignorer ñiy gas forage yi ñiy defar tali yi ak ñi nekk ci réew mi seen liggéeykat yi dañoo sonn sonn sonn sonn et puis ni ñuy liggéey metti ba nga xam ne il faut que côté boobu ñu seet ko bi ci des mooy protection sociale bi ak euh, ak euh, précarisation emploi état Sénégal am na lu nga xam ne syndicat yi bu ñu koy revendiquer il faut que ñu ñuy bàyyi xel ñun dañoo mas a revendiquer parce que mënoo établir politique sociale bu efficace te teniroo compte ci adéquation formation emploi xam nga cahier de doléance yi ngeen doon wax sànq dix ans ñu ngi ñu ngi doon revendiquer formation adéquation formation emploi mi ngi soog a am effet effet bi lan la mooy am nañ programme bi ñuy wax 3S euh, en euh, euh, formation duale nekk jamono ci entreprise bi dem ca école ba ba nga xam ne yow boo génnee ci école bi rek mun nga dugg directement ci entreprise bi beneen bi nga xam ne politique publique yi sóoraale nañ ko te ñu jàpp ne ci revendication syndicat yi la jógee mooy les universités thématiques fi mu nekk nii Sénégal benn université la amoon ba bu yàgg mu am ñaar te université yëpp université kii lay doon enseignement général. li ci ëpp mais université thématique yi. bokk na ci revendication yi nga xam ne syndicat yaa ngi ko mas di porter pour l' adéquation emploi bu ñu utee université bu nga xam ne spécialité ñu ngi ko war a samp fële ci Sabodala spécialité affaire mine la xam nga loolu am na solo ñooñu bu ñuy génne di liggéey université ñu xam ne spécialité agriculture ak yeneen ak yeneen loolu nguur gaa ngi ciy taxawal ay jéego ñu ngi ciy dox ay jéego yu am solo yu nga xam ne mën naa jàpp ne bokk na ci revendication yi ñuy pousse pour loolu am kon tey jii toll nañ fu nga xam ne. protection sociale ci liggéeykat yi nga xam ne ay travailleurs atypiques lañ leen di wax wala liggéeykat secteur informel bokk na ci suñu ité war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax kon xeetu dialogue sociale bi ñuy mëne aussi war nañ ko évaluer donc tey jii yaakaar naa ne waxtaan bu yaatu war na mën a am ci xëy bi pour ñu xool naka lañ koy naka lañ koy normer pour mu gën a dox pour mu gën a avancer mais également pour ñu gën a respecter droit travailleur bi parce que ba tey jii da ngay gis entreprise yu mag bëgguma leen citer ñu yaakaar ne dara la yu nga xam ne ba tey dañuy bañ élection délégué du personnel mais loolu c'est tellement élémentaire te bu ñu xamoon élection délégué du personnel njëriñ bi mu am ci entreprise ak ni mu mun a réguler normaliser liggéey bi buñ ko buñ ko xamoon duñ ko bañ te ba tey ñu ngi koy bañ am na ñu nga xam ne dañoo jàppe syndicat noonu loolu moo taxoon ca pacte ba bañ koy defar parce que pacte bi dafa am ay ay ay fondement fondement pacte bi ñun dañu waxoon ne hmm. te CNTS/FC bokkoon na ci ñi defoon proposition boobu na ñu jàppee revendication comme facteur de progrès et non comme comme comme moyen de chantage syndical parce que bu ñu ko jàppee comme moyen de chantage syndical rek musiba am mais bu ñu jàppee ni revendication facteur de progrès la kon dinañu gaaw a jubóo te dinañ comprendre lan mooy action syndicale hmm. action syndicale dafa war a jëmale bien dafa war a jëm ci bien-être te bien-être bu amee ñëpp koy bokk. alo salaire rek mooy élément bi nga xam ne da koy dugalaat ci entreprise bi. dëgg la te salaire yi daal nee nga faw ñu yokkaat mais dama la bëggoon laaj juste Cheikh pour terminer ak yow euh, est-ce que tamit waruñu réviser li nga xamante ne moo di moo di texte yi euh, surtout pour euh, travailleurs yi nga xamante ñoom ñoo nekk dans des zones rurales surtout pour les travailleurs ruraux là. su ma doon réviser texte yi. texte ya non dama ne est-ce que waruñu révisiter. Hmm. texte yi nga xamante ne maanaam euh, moom moo jëm ci travailleurs ruraux yi les travailleurs la parce que dégg naa coow lu bëri am na et ça date des années cinquante su ma xam nga je veux pas euh, donner quand bi convention collective bi 82 bu yàgg la ñu ne nañu réviser convention bi parce que convention yi ñu war a réviser bëri na. a hmm. commencer par la convention collective nationale interprofessionnelle convention bi nga xam ne moo tënk yëpp. convention bu obsolète la. actuellement nii ñu ngi ciy waxtaan ba desul lu dul ñu stabiliser projet bi. négocier ko terminer ko. mais loolu dañoo dem ba ci digg bi gis ay jafe-jafe. parce que gis nañ ne patronat baa ngi boycotté atelier de validation. xam nga loolu aussi. <laughs> loolu aussi dafa xaw a doy waar. am na secteur yu nga xam ne amuñu sax convention. mais heureusement foofu aussi ñu ngi ciy def ay progrès parce que. gardiennage hmm. secteur la bu ñu mës a pour mu pour mu am convention dañ ko mës di xeex wax dëgg yàlla loolu def nañ ci ay progrès mais li gën a indi mbetteel mooy secteur bu avancé comme pétrole amuloon convention ñu ngi soog a am convention nii hmm. donc nit ñi dañ doon liggéey sur la base de d' accord d' établissement wala ñuy liggéey su la base de convention bu nga xam ne euh, fourre-tout la société euh, secteur bu jóg rek amuloo foo jëm amoo convention nga jël convention commerce est-ce que yaakaar gan ni ak pétrole bi di ñëw yow mi nga xam ne yaa ngi si yaa ngi si syndicat du pétrole et du gaz euh, est-ce que gaz bi ak pétrole bi di ñëw dina yokk emploi bi lu bëri si seen secteur yi. loolu. wala xayma xaymaagu leen ko. loolu loolu dafa am pàcc bu nga xam ne ci biir pétrole bi. Hmm. ñun dañ ci xaroon suñu tànk tubéy pour euh, gouvernement bi bàyyi ci xel. Hmm. muy li ñuy wax local content. xam nga pétrole dafa xaw a complexe. waaye bu fekkente ne autorités yi jël nañ seen matuwaay am na yeneen niche yu nga xam ne muy ëppal presque njëriñ réew mi que que que exploitation pétrole bi ci boppam parce que exploitation pétrole bi ci boppam contrat yi c'est presque frais préfabriqué te Sénégal mënu ci dara kat parce que adduna bi yëpp noonu la ñuy doxee parce que mbirum pétrole su fekkee taxe yi c'est trop contraignant et trop favorable pour le pays kenn du ñëw si c'est trop favorable pour l'exploitant également le pays per donc il faut un juste milieu waaye li ëpp solo mooy local content gis nga tey ji pétrole bi hmm. waroon dañ fexe ba mu am ay retombées ci biir réew bi ci biir économie bu nga xam ne véritablement dinañ ci tirer beaucoup de valeur ajoutée formation xale yi liggéey bi entreprise yu ndaw yi ñu war a booster ak yeneen ak yeneen local content boobu dem nañ ko assemblée voté nañ ko parce que am na xeetu liggéey yu nga xam ne waratuñu nangu keneen jóge bitim réew di ko def entre secteur privé Sénégal boo ko war a def loolu yëpp kii nañ ci am na aussi lu nga xam ne bokk nañ ci li tax liggéeykat yi voté woon euh, la dernière euh, constitution article bi nga xam ne dafay consacrer de nouveaux droits de nouveaux droits citoyens. Mm-hmm. pour daanee droit sur les ressources naturelles. droit des populations sur les ressources et sur leur environnement. Mm-hmm. loolu it am na solo waaye bañ ko voté ba tey amaguñu euh, loi loi loi organique bi génnagul xabaguñu ba tey naka la ñuy répartir kii yooyu ak. population yi yi yi yi abrité les ressources minières lan moo ci seen njëriñ. véritablement mooy vraiment lenteur yi ñuy a deux défauts gis nañ ne quand même presque toutes les lois les plus bonnes lois ont été votées mais à chaque fois son applicabilité pose problème. gis nañ éventuellement am na ay réunions yu def des états généraux yu dul jeex def nañ ko mais tout est rangé dans les tiroirs mais d'accord Cheikh Diop c'est parce que waxtu bee ñu xooj mais Babacar. Mhm. tey yow mi jàkkaarloo xale yi lay seetaan mhm. nga leen di wax ñoom ñi nga xamante ne ñu wut waaw bon c'est vrai que wax naa la sànq ni que ni que si qualification bi. Hmm. qualification moo war a parce que wax naa la ni d'après chiffres yi ma gis je crois que c'est euh, dans les années 2010 euh, euh, rek nee bi ñu xaymaa maanaam ñi nga xam ne ñi ngi liggéey cinq pour cent rek ñoo ñoo si am métier. ñoo si am benn qualification. xam nga loolu Cheikh am na junju na ci ñu bëri dañuy jàng ba yegg fi ñuy yegg mais fekk na amuñu formation boo xam ni mën nañu am diplôme yu nekk waaye nag mën nañoo dem liggéey je crois que léegi système bi boo xoolee xale yu bëri sax jóge ci université yi dem ci université yi di fayale yéen gouvernement di fay ñoo sax chance hmm. parce que ñooñu daanaka bu ñu génnee rek liggéey loolu am na am am na solo mais jàng métier bi moo jiitu ci lépp loo mën a gis xam nga xale ñu ngi liggéey mais leneen li aussi il faut ñu jàppale leen gouvernement bi pour xale yooyu mën a liggéey yaa ngi ciy wax ni secteur privé bi il faut que yaa ngi dégg yaa ngi dégg temps yi bee di añ am na sortie bu mag je crois que débat yi sur le travail patronat bi am na si rôle am na si part de responsabilité boo xam ni peut être dinañ amaat beneen thème boo xam ne ñoom la ñuy impliqué parce que bu fekkee c' est vrai le gouvernement mën na jël état mën na a a mettre dans des yoo xam ni ñoom ñooy mën a jël les emplois yi nga xam ne moom la ñu yaakaar peut être aussi waxtaan ak gouvernement bi pour xool dans ces conditions là yan genre emploi la mën a jël jeunes yi parce que jeunes léegi métier yu bees yi bëri na bari na xale yaa ngi siy dugg je crois que il faut que le secteur privé ñu encadre leen en tout cas yokk leen doole bien que ñoom war nañu mën a gën a organiser wu ba nga xam ni emploi ñuy soxla si jeunes yi jël leen parce que ñaari mbir yooyu ñoo am hmm. ñi nga xam ni c'est des emplois précaires hmm. maanaam jeunes yu bëri ñi ngi liggéey mais toujours ñi ngi xalaat ndax ndax bu weer bi deewee dañ ko ne liggéey xam nga loolu dafa metti yaa ngi liggéey mën nga sa métier mais yow dépendrul sa sa des si entreprise bi dépendrul si yow ak sa liggéey hmm. da ngay liggéey ba sonn waaye à chaque fin du mois yaa ngi naan est-ce que dinañ ma jëlaat donc loolu emploi précaire boobu dañ ko war a régler beneen mbir bi mooy ñu bëri ñi ngi liggéey mais kenn boolewu leen ci bi en tout cas ñi ngi am part importante ci économie bi informel bi a wax. bien sûr ngi ci mbedd mi ñi ngi liggéey mais il faut que ñu formaliser leen yëgal jëlee ci niveau boobu yóbbu leen beneen niveau pour li ñuy liggéey au moins ñu mën ci am njariñ pour ñoom ak seen i njaboot. je crois que yooyu c'est autant de problèmes yoo xam ne yaakaar naa bu ñu ko réglé mën nañu jëmayaat fu gën a sori. jërëjëf alors Karim man ñetti laaj laa la bëgg a laaj. bëgg nga tontu ma ko en trois minutes. <laughs> benn laaj bi laajoon naa ko Cheikh. laaj bu nekk une minute. laaj bu nekk une minute parce que waxtu wee jot fu mu toll nii. <laughs> laaj bi laajoon naa ko Cheikh mu jëm ci li nga xam ne moom moo di maanaam euh, euh, révision des textes. surtout oh. yu jëm ci travail yooyu boobu benn la. beneen bi moo aussi révision convention beneen bi tam mooy xale yi lay seetaan tey. tey wut liggéey lan nga leen di wax ñett yooyu laal bëggoon nga tontu. Euh, bu njëkk bi mooy euh, les textes agricole effectivement textes yi yàgg na trop trop trop trop trop bon euh, mais foofu li ko li tax avancé wuñ ci mooy ñaar lañ mën a régler problème mu secteur agricole bi soit. partenaires yi d'accord ci benn convention collective benn projet de convention collective saisir ministère bi mu créer commission mixte paritaire leen ñu waxtaan juboo sur toutes les dispositions hmm. wala gouvernement bi réglementer secteur bi ñaar yooyu rek moo fi mun a nekk aujourd'hui li ñu décidé mooy dajale njëkk a def une grande réunion de consultation de tous les partenaires sociaux pour xool kes ce qu'il faut réformer d'abord lan lañ bëgg a actualiser lan lañu bëgg a dugal ci biir pour une meilleure protection des travers du secteur agricole on le fait avec toutes les parties prenantes bu ñu pare on va les aider ñun ñu am benn projet de convention collective comme ni ñu koy defee avec les autres secteurs bon beneen question bi c'est euh, concernant les jeunes xool bon les, les je, pense que nous sommes dans un monde euh, très ouvert bon chômage métti na ku la wax chômage amul euh, waxu lu dëgg il y a beaucoup de chômeurs euh, un peuple c'est un phénomène mondial mën naa la jox taux dans dans beaucoup de pays euh, y compris même européens américain c'est un phénomène mondial mais dañuy ñëwaat rek ci opportunité bi nga xam ne avenir du travail mu ngi koy joxe aujourd'hui avenir bi mooy la Babacar laa dit mooy formation professionnelle il faut que xale yi songu les métier de demain nañ exploiter les opportunités dugg ci sur les euh, les dugg ci digitalisation bi dugg ci les les les nouvelles technologies et parce que lépp ay changé après dañu dinañ dem ba ci kanam dañuy dem même euh, yegg ci télétravail aujourd'hui télétravail sax day remettre tout en question commencé na dans beaucoup de pays des gens ils ont euh, un métier ils l'exercent à partir de chez eux mhm. toog sa kër di liggéey dans les mêmes conditions di def les mêmes résultats que kiy jël oto di dem peut-être même des résultats beaucoup plus efficients parce qu'ils dépensent moins et cetera mhm. donc avenir li may li may encourager jeunes yi mooy nañu euh, def des formations professionnelles euh, qualifiantes et je pense que gis nañ beaucoup de de de de de projets de yoo xam ne initiative yoo xam ne gouvernement mu ngi koy lancé je pense que l'un des succès quand même, c'est aujourd'hui du gouvernement, c'est un peu la formation. Il y a beaucoup d'initiatives. Le projet école, entreprise, etc. jërëjëf jërëjëf Karim Cissé mi nga xam ne mooy directeur du travail Cheikh Diop ñu lay gërëm secrétaire général CNTSFC Babacar Dione aussi sama naataango bi ànd ak man saa su nekk ci émission bi tey nag xam ngeen euh, laaj bi moo doon situation des travailleurs fii ci Sénégal waaye gis nañu quand source de blocage lu ci a xaw maanaam affaire bi tàggatee mbene parce que état bi tamit attunu loolu euh, ndaxte bu ñu xoolee ci critère de convergence bu UEMOA nee nañu Sénégal dépassé na sax euh, li nga xamante ne moo di pourcentage bu ñu ko permettre woon ndax 35 pour cent la ñu permettre te Sénégal mu ngi ba 40 pour cent ci si recette fiscale kon nag. bu ñu yokkee est-ce que du ëpp wala déet lan mooy mbir mi nee nañ waxtaan faw ñu faw ñu def ko kon waxtaan nag lañu doon def tey pour xool lan moo war a mën a génn donte nee naa ñoom seex Diop nañu bàyyi seen kii nu ñu koy waxatee waay euh, seen euh, ngir tooñ ko rek seen seen seen kii ni ko subvention yi mu ne ma déet ëpp naa def yooyu ci travail la jóg <laughs> mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant jàmm ak jàmm ba àllarba incha allah rabbi wala boog àllarba bii di ñëw sax ci koor gi lay daañu leen dégtal euh, horaire 90 minutes ensemble bu bees bi ci ci ci suñu programme yi jëm incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi jàmm ak jàmm.